gën a waay tokki wuñu ndax mag moo ñu jiite te nee na du baax mag bu sonnul xale du sonn moom magum jëmm nee na moom day samp ndëndëm day bëri ñu ne ko ah kii si frot si pic gannaaw ay plan d'action yu bëri ngir soppi xar kanamu croix rouge liñ ci mébatoon lépp amuñu ko ci bile yoon nag ñu daal di soppi euh, doxaliin ñun ñooy faj manifestants yi ñun ñooy faj policiers yi ndax du ngeen gis sapeur pompier génn de. du ngeen gis keneen génn de parce que mu muñal askan wi ñun rek ñoo am capacité boobu nous sommes le plus grand réseau au monde de volontariat appel laayel lu toll ni appel laayel volontaire yi seet si ko bëgg koo gis pour mu jox ñu juntukaay parce que volontariat loolu da ngay signé engagement amoo ci salaire mais da nga bëgg taxaw ba dañ la war a jox juntukaay mu ne ñett bu ñu sukkandikoo eh, ci charte yi eh, croix rouge dafa war a amal assemblée générale élective ngir tabb njiit ñeenti at yu nekk wante nag ñeenti at ak juróom benn weer a ngi nii njiit bi ba léegi moo fi nekk loole nag eh, duñ ko nangu. dañoo woote ñetti fan ngir taxaw ne tem ndax dañoo for ci wéyu béy que dafa bëgg organiser dimanche bii di ñëw dibéer que ni le cinq dafa bëgg organiser assemblée général bu mag bi boo xam ne Dakar du bokk. département Dakar du bokk département Pikine du bokk Kër Moussa du bokk Goudomp du bokk Bignona du bokk euh, mbuur du bokk loolu lañ ne làkk doom dóor doom du am. bi les résistance nationale bi ñu bëgg amal nag mébé bi lenn la rek moo di comité départementaux yi ñu daal di koy yeesal si jamono ji ñu wax ak yéen nag yi fare ci région bu Dakar ak yeneen département fare fii ci Sénégal dañ ko daal di génnee. Euh, njiitalu ndaw ñi ak opération de secours ak volontariat yi fare ca croix rouge bu Dakar euh, jàpp ni yëf yi dafa taq suuf euh, ci wàccaayu élection yi